Muhammad Ramadan Chers amis téléspectateurs de la 2 nous sommes au terme de cette marmite du cœur réservée à la ville de Guédiawaye. ambiance amoon na fi lool ndax kii nga xam ne moo di doomu géejawaay bi ñu koy surnommé le lion de géejawaay ñëw na indi ambiance bu am solo mu di Balla gay ànd ak ay rakam ni ki Sa Thiès ak ñii nga xam ni ñoo di ay compagnon ni ki Boy Naar waa géejawaay accueillir nañ bu baax initiative bi waaye nag il faut ñu xam exactement mobilisation bi lan moo waral Balla Gaye sawar ci chaque fois mu ñëw ci te réussit am na ci quand bala Balla waaw kontaan rek xam nga kon ni ma la ko waxee rek ñun ñëpp ay lañ ay doomu aadama lañ jaamu yàlla mooy buur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma Touba Maam Alaaji Malick Maam Laay maam bu Ngor Ndiassane Laay Ñaseen Xaadir ñëpp benn lañ te ci weer bu sell lañ nekk tey ñu yëkkatoon ay sikar yoo xamante ne ñëpp lañ koy bàdde képp koy jullit di bëggee ñëpp dam kontaan ba baax dam xamal ni man moom man moom laa am fu ma fu ma joxoñ daal fa laa <laughs> bokk muus di jégalu aussi gars yi di baalu ak ñëpp ci weeru koor gi di baal ñëpp di ñaan yàlla Sénégal na fi jàmm yàgg di comme ni ñu ko duggee ci bisimilah rahmaani rahiim ñu ngi ñaan yàlla tam génn ci alhamdulilah rabbil alamin di gërëm tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo organise affaire yi ñoom Tafa ñoom Alsane ak équipe bi yëpp parce que lii tamit métti na trop yombul dëgg yàlla mais tamit yàlla na yàlla fay seen xol ba liñ ci séntu yàlla na nekk lu loroo daal neex. moom lu mu xawle rek man damaa war a moom mooy man man maay moom ñaareel bi mu nekk ci weeru koor nekk weeru boo xam ni weeru njëggal la ak weeru yërmande weer boo xam ni dañ cee taamu joxe ñam te moom ñëpp xamee ko bu weeru koor dañuy wax ni saxoo li gën ci nit lu muy def mooy lu mu saxoo moom xam nañ ni même bu dul weeru koor dafa saxoo buntu këram amul Jean amul Paul ñëpp dañ fi rang lu mu am daf koy bokk ak jaami ñuy ñaan rek lépp luñ fi def ci jëf dal na ko yàlla ful ba ñu ñëpp ñu dajawaat àjjana rek. booy naar bàyyi faal nga wala. waaw man jullit laa rek <laughs> waaw ñun benn rek ñun ñëpp jullit lañ àjjana lañ jëm incha allah. ndax bokk nañ ci ñu diw beurre yi ak chocolat yeeg yooyu lan moo tax nga sawar ci munaas. waaw jul ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si Seydina Mouhamed sant ku tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lii yëpp nag dañ ko def ngir yàlla rek ndax defuñu dara taxuñu ñëw fi li jëmmi Serigne Touba. ak ñëpp pour doomu taalibe yi daal ndax ñun si Sëriñ Tuubaa la ñuy dund si la ñuy xëy si la ñuy gont lépp lu mu santaane su booba ngoon dañu ciy dox di ñaan nag li ñuy def nii chaque année yàlla nañ koy def année yi kenn bañ a yàlla dañu yombalal lépp ndax instant bi sama xol dafa fees ndax di dafa neex daal ah, nga neñu di jox doomu aadama yi lekk dafa neex man daal xaw instant bi mënuma wax sama xol dafa fees élèves yi nag xam naa xol bu rafet la yor macha allah euh, keneen ki moom ñu xam lan lan moo war a sa tànk ci marmite bi boobu léegi waaw ah, ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ndax Marmite du Cœur mag ndaw ñëpp a siy gis seen bopp ndax dafa nekk lu rafet loo xam ne ñëpp ñoo si war teew ndax liggéeyal borom bi la te képp ku liggéeyal borom bi wax nga seen mën a teew ndax gisuma lu gën a rafet nit woor ba ngoon nga jox ko mu lu amul lu gën a mag loolu kon ñun ñëpp dañu war ñëw si waar bi ndax waar bi comme ni ñu ko waxee waaru yàlla la merci. waaw ki ci ginnaaw nag moom sama doom la Euh, neex a seen ba dee waaw ñu bëggoon xam rek lan moo waral nga sawar ci loolu. ah comme œuvre de solidarité la ñu ñëw si ñun ñëpp def suñu participation nekk initiative bu rafet ñu si woo Sénégal yëpp di remercier sponsors yi leen wax nag ñu gën a ñëw jàpp si affaire yi affaire bi yëpp yàlla la daal. suñu borom ki mu àndalul mooy kurul tàmbali dara waaye lu lu jaamam tàmbali mu fekk la ci kon ñu ngi koy sant di ko gërëm sant bi njëkk moom moo ko moom moom mi ñu may ñu tàmbali Shahru Ramadan. dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin ñuy sant bu baax a baax a baax ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañu ci Marmite du kër bi bi mu tàmbalee ba léegi tàmbalee ko ci maam Thierno Birahim Mbacke ndaamal daaru di borom daaru nga xam ne suñu wëlëre la suñu sëriñ la suñu xarit la e, lu nekk daf ko daan daj ci Marmite du Cœur lu nekk daf koy dégg ngir Marmite du kër ñu ngi koy balu àq ci rëq-rëq yeeg yëpp ñu ngi koy balu àq ci lépp ci incompréhension bi am ci mbokk taalibe yi ci incompréhension bi am ci nit ñi ndax ku xam borom daaru muxti xam ne du nit kuy def politique xëy na marmi du kër moo koy dugal ci yenn yi marmi du kër moo koy defloo yenn yi marmi du kër moo koy yóbbu fenn fi ndaxte moom lu ñu neex neex na ko lu ñu bëgg ci lay taxaw donc ñu ngi ko ci balu ak vraiment di jégalu di balu ak fépp fu marmi du kër mës a jaar Assane bi ñu demee jógee Kaolack dem ba croisement jaaru mbay di dem Kolda dem Sédhiou def Ziguinchor def ko aller retour di daw guddi di daw bëccëg dugg ci benn zone boo xam te ne ñu bëri dañu ne woon bu leen fa dem te Sénégal du Dakar rek quatorze régions yi la fépp donc ñu ngi sant suñu borom sant population wu Casamance surtout parce que dañ ñu accueillir ubbil ñu seen bunt ubbil ñu seeni porte maanaam lépp li nit ñi doon wax di ko xalaat di ko yaakaar amu fa yaatal nañ ñu dugg fa ci bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin di sant population wu Ziguinchor population wu Sédhiou population wu Kolda waa Korosma Dianoumbe waa Kaolack ku lim dëggee juum Louga Fatick fépp Kaffrine fépp fu Marmite du Cœur jaar ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen balu àq di balu àq aussi suñu yaay yi nekkoon ci waañ wi parce que waañ wi tàng na bëri na saxaar matt lañ doon toggee soxna yi bu ñu duggee ci benn dëkk 9h dootuñu amati jàmm ba ni fa Marmite du Cœur di génne. ni Sa Thiès def ak Balla Gaye tey mbégte la ci ñun xam nga lu tax parce que dafa am lu ñuy représenté tey ci jeunesse su Sénégal yëpp na xam waa diaspora aussi la même chose leen nit ñi di xaar foofu la donc ñaanal ñoom ñaar ñi. ba seytaane bañ a dugg seen diggante mukk ci abadan mukk mukk mukk mukk parce que ñoo bokkul ndey ak baay au delà de lu nekk tey saa dafa yëkkati kàddu gu garaaw ne man moom laa am kon saa moom la am moom saa la am te ñoom ñaar ñëpp ñoo àndandoo am ñi ne seen ginnaaw voilà loolu fraternité boobu solidarité boobu moo war a continuer damay bëgg rek góor yàlla yi ak gars yi nañuy maanu ciy bari jël ci exemple fu ñu mën a dugg ñu fay dugg fu ñu mënta dugg ñu bañ fa dugg yu mel noonu day am encore une fois jël nañ ci exemple barki demo Ndiaye ci borom daaru Muxti ak yenn mbokk taalibe yi fu fu fu nit mën a dugg rek lay dugg seytaane nag fu ne lay nekk lu ne lay jéem pexe bu ne lay jéem te fu mu xajul rek lay dugg kon ñu ngi sant ñëpp ci surtout weer wi ñu ne nga xam ne suñu borom day tënk seytaane donc nit ñi dong ñoo seen i pexe bopp rek ne la ñuy doxee mais suñu borom saxlu ramadan weer wi day tënk seytaane téyel ko boppam ba du jóg du yëngatu du def dara kon seytaane nit ñi ñooy dugg di jaxase nit ak xam nga yaay ak doom frère ñaari frère lu nekk ñu ngi sant ñëpp di gërëm équipe mu Mbarmi du kër surtout góor jigéen mag ak ndaw mënuñu leen fay tey amu ci kenn ku am salaire xam nga liñ doon dund ak ñoom te metti na quoi ànd ak ñoom jigéen ñi ñu bàyyi seen waa kër ñu ngi leen di jaajëfal di remercier tamit bu baax a baax a baax baax baax baax Marème Faye soxna borom réew mi parce que tey ñun lii mooy àdduna ñaari jeunes sénégalais sumbu benn initiative moom en tant que première dame mu ñëw ànd ci ak Daouda Faye rakam ñu jàpp may ñu doole loolu la xaar ci état c'est très important donc ñi ngi sant la fondation Servir le Sénégal parce que gis nañ seen loxo ci Marmite du Cœur bi mais loolu ñun ñoo ko sabab du sababu borom daaru Muxti Marmite du Cœur moo ko sabab kon ñu ngi sant bu baax a baax di balu àq ñëpp di gërëm ñëpp di jéggal ñëpp nag ñëpp ñu am kañ compréhension ci Marmite du Cœur ba teg yenn kàddu yi suñu ginnaaw ñu ngi leen di baal àq parce que weer wi weeru yërmande la weeru solidarité la weeru bokk li ñu am la. waaw dañuy am satisfaction totale je parce que tey ba ñu defee seen Sénégal en entier on peut être fier mën nañu kontaan suñu parce que ay doomu sénégalais ñëw daf tuuti Sénégal joxe fa ay ndogu je pense que mën nañ ne on est fier de nous parce que au début bañ ko tàmbalee gars yi dañu wax du ñu egg su bëri ñu ngi doon wax du ñu egg parce que loolu ñu bëri dafa métti métti na ci effort métti na ci lépp loolu la xalaat mais suñu borom sutural nañu ba ñu egg ba ñu commencé ko bisimilah rahmaani rahiim terminé ko fii alhamdulilah rabil alamin